te ki ko ci yedd di tubaab ni ma xam nga baatu spoliation ma ni ko waaw mu ni ma moom la Hitler daan def juif yi mu ni ma moom lañ la bëgg a def ba dem naa yedd ko mu ni ma parce que bu nu ko lorul ci alalam dafay am budget de guerre billaay te kooku noo bokk tariqa loolu defe nga ni jëkk na moo tax déggul sox ba moo taxit déggul sox ba yooyu dafa rafetul ci réewu jullit parce que ba budget de guerre pour lan pouvoir boo xam ni bu ma ba ma xëti loon loolu kenn soxlawu ko loolu kenn soxlawu ko waaye lii la ko wax ni ko budget de guerre la ñuy bañ mu am ko nangam nangam nangam wax a wax te noo bokk tariqa bi kat loolu baaxul mu mel ni kon di ko wattandiku lu baax a baax a baax la waaw heureusement que lu ci ne yàlla da koy faj waaw da koy daal di faj lu ñuy doyee lu ñuy doyee budget de guerre ak lu ñu doyee pouvoir pour lan koy teg loolu amul moo tax suñu waxee PSS dañ ko doon def pour xeex ak Senghor ko kooka xamul xamul affaire bi ni mu demee xamu ko mukk xamul affaire bi na mu demee gis nga dugg naa ci parti politique gis nga fi ma toog ma wote mësuma inscrire mësuma wote mësuma inscrire mësuma wote waaw ka ma inscrire loon hôtel ma ndax bëgg parti bi may bàllu si àq ci civière lañ ko teg ndax santuma ko ko mu baalu ma ma bal ko àq ñu teg ci ñetti fan mu faatu waaw pour wax la ni yëfi caaxaan baaxul lu nu doyee pouvoir nun kay dañuy mën a gis gor bu mën a amee réew mi ñu jàppale ko loolu rekk la ndax njaboot njaboot la tudd waaye pouvoir dang-dang ji dang-dang ji ci pouvoir kooku kenn ñaanu ko yàlla mukk ah loolu kenn ñaanu ko yàlla dang-dang joo xam ni du la wàcc mukk mukk mukk abadan loolu kenn ñaanu ko yàlla noonu soxla wunu pouvoir yàlla xam na ko waaye nag sañ na nu am sunu xarit wóolu ko jàppale ko et leneen mënul nekk te it bu bu tooñee nu wax ko ko bu tooñee nu wax ko ko moo xam dafay bàyyi wala du bàyyi waaye bu tooñee nu wax ko ko man looluy sama ko yàlla xam ne ko te ñoom ñëpp ko ci laaj mu ni la dëgg la bés bu nekk bu xale yi daan dal ci kaw Abdou Diouf ma ni leen am na qualité de parce que lu ma ko tere mu bàyyi ko yàlla xam na ko te dan daan xeex guddeeg bëccëg waaye dana dana am ma ni ko lii mënul nekk mu bàyyi ko yàlla xam na ko toog naa fii mu bàyyile ma doomam ni ma na nga ñëw ca pale ba maye ko mbooloo sax du fa ñëw ndax xam naa ni soppaloo mbooloo waaye nga ñëw mayal ma sama doom bu jigéen wax naa ko Moustapha Bachir ba ne dana fa dajeeg yow bu ko defee juróom benn rekk la nuy doon te maire bi Doudou Diop moo nuy juróom benneel ndax xam naa sa jikko ma ni ko bu ma ko defee yàqal la ma ni ndax ñi ma bàyyale seen doom fii tey soppee sëñ Babacar te ku ci ne ilimaan ja dëkkal laa lay booleel ca jàkka ja mu may la bu ñu déggee ne maa ngi këriñ këriñ yi jëm ca pale di maye ji ñu génnee ci man àdduna ak àllaaxira ma wax nga dëkk boobu gisuma ko woon mu génn ca te amul benn rancune toog naa mu téléphoné ma ni ma tey ñëpp a bëgg ma ni ko lu tax mu ni ma demale la bëgg a décorer te comme ñi ci présidence ñëpp sa xarit lañu ñoom ñëpp préparé nañu sa doom yeeg ñoom madame Ndoye ak ñoom Yaasin ñoom Ndiir ak mu ni ma ñëpp préparé nañu seen cadeau nga ñëw ma décorer la ba ñépp xam loo doon ci man ma ni ko kon du baax ma ni ko kon du baax mukk dafa lay wutal ay noon ma ni ko bu ko def mukk mu daal di koy comprendre ci ëllëg sa mu yónnee si ma médaille ba ak certificat ba xam ni la ma ko wax mooy dëgg toujours noon la daf koy nangu bu ko defee yu mel noonu loolu rekk la ñu séq ak ñoom wax wax leen lu nu xam lu rafet waaye xëccoog ñoom pouvoir du nu ko def yàlla xam na ko Senghor dafa yónnee ji Paala Mbay ni ko jëlal oto bi dem jëlali ma Cheikh ni ko maa ngi koy yëgal ne Ada Senghor dafa faatu bu Cees te nag ku ñëwul ci dëj bi naa la mere ndax mooy sama baay mooy sama mag waaye mooy sama baay jëlal oto bi dem jëli ko paale ñëw tabarkalla ma nga sol keroog mantu bu rafet indi oto sengoor ni ma duggal ñu dem Thiès ci dëj ba ma ni ko soo demee neel sengoor lànk na ndax astukan jóge na fi te ñëwul ci dëj ba billaahi wal kitaab que caaxaan baaxul ni ko nag bu fa jógee man dinaa dem jàlle ji ndax ña fa nekk sama njaboot lañu ndax seen yaay sama wëllëre la waaw ay ta ay ta jóob ku baax ci man mu dem wax ko sengoor Senghor ni tekk ba mujj mu ni ko wax na dëkk mu ni ko waaye bu ma expliqué bu ma ko expliqué lu tax ñëwuma ci tëjuwaat sukan dina ma baal te booba dafa fekk wàllu sante taxoon nag noonu la ko daal di wax te fekk na ci ñi ma jëkk a téléphoné ca la bokk moom sengoor bi fi soxla si jógee Lamine Gueye moom soxlawul sama téléphoné ko dafa nit dañar ci sama kaw ni ma ana ana Senghor ana Senghor ma ni ko ñëwagul waaye yónni na si se ja mu ni ma yónniwu ko si se ja boppam la ñëwal ndax astu kan a jur ñëpp tey waaw ni ma an sa téléphone ma ni ko mi ci néeg bi mu ni ma Senghor lay woo ma ni ko ëpp naa def bu ko woo bàyyi ko rek mu daldi bàyyi pour wax la ni noonu man boobu relation laa am ak ñoom jeex na jeex na bu ñu jaaree ci yoon ma d'accord ci bu ñu jaarul ci yoon ma wax leen ko et puis c'est tout kooku loolu rek la yàlla xam na ko ba moo tax affaire pouvoir du nu tax yëngu affaire affaire PSS ni mu demee dama toog rek gouverneur woolu ma gouverneur du Sénégal tubaab la ma ñëw mu jox ma ñaari texte bu arab bu arab ak bu français ma jàng ko te wax ma lu ci sa xalaat ma jàng ñaar yépp ma ni ko mikki xanaa suñu constitution la mu ni ma waaw constitution bi ngeen nar a am mu ngoog ni ma loo ci xam ma ni ko ñaar de bu ñu taxawul daañu perdre mu ni ma ñan ma ni ko sëriñ ak chef de canton maa ko ko wax mu ni ma yow gis nga affaire bi ni ma est-ce qu'il ne serait pas bon nga informer sëriñ si ma ni ko mukk ma ko defee yàq loo xam ni kenn du xam na mu toll mu ni ma kon nooy def ma ni ko damay jël position bu ma jëlee position ba mu tàng ba tàng daañu dem wuti alliance su sëriñ si mu jeex tàkk mu ni ma ay risque ngi ci ma ni ko moo tax ma di ko jël ma ni ko lu amul risque baaxul yàlla xam na ko loolu dajeeg intellectuel yépp dem ko tunu fa seen réunion ni dañuy laaj indépendance total bi ñuy laata ñëw fekk ma def sama déclaration rejeté lañu fa wax yépp wax ni duñu def mukk indépendance bu nekk ci loxo néegar yi kese kese duñu ko def parce que xaru la Senghor ñëw ba mu ñëwee gis déclaration bi jóge Cotonou moom Senghor mu bind ma lettre ni ma Serigne Babacar si moo la inspiré position bi nga jël parce que lanu arrêté ci Cotonou buñ ko doxalee nun ñëpp dinañu al ko loolu la wax moom Senghor leetar bu rafet la ma ci bind Mamadou Dia ñëw def déclaration wax ni d'accordul ci sama démarche kon nag mouvement bi ma def nañu ko daldi dissoudre nga defe ni mer naa ci mukk dama daldi xam fu yëf yi mujj ndax ñaari philosophie yu bokkul la te ñëw seq réew mi kon nag ci éclatement rek lay mujj yàlla xam na ko moo tax Mamadou Dia mujj na ko wax ci kanamu Haji Ibrahim Niass ni ma loonu critiquer rek d'accord naa ci dafa fekk dama ko mënula wax rek te wax na dëgg ba ñu génnee xaaj Ibrahima Niass ni ma kii ku honnête la bu honnêtul woon du waxe nii yàlla xam na ko lettre ba ma ca Senghor bind lettre bu ne rafeti mosuma ko gis lettre ba sax dafa am ku ma ko àbb ku ñuy wax Foccart te nekkoon ak général de Gaulle ca Paris ma jël lettre ba jox ko Elisabeth Diouf pour mu yóbbul ko ko booba Elisabeth a ngi ca ba booba Abdou Diouf dencagu ko booba mi ngi am xale bu tuuti bu jigéen bu ko yàlla jox ma ni ko takk naa sagar ci tànkam ni mag ñi daan wax ma ni ko li ma metti mooy bu màggee dafay fekk ma màggat yàlla xam na ko pour wax la ni nun jógewuñu ci pax ki nu yar lu ne xam sëñ Babacar si barkeelu ci moom rek bu façon loolu la moo tax ñu def PSS ne a ah, comme dissoudre nañu mouvement bi nañu def parti politique pour wone lu sañ ñu nitam moo tax waaye fekkoon ne wut pouvoir rek la bu ñu sàcc élection ya kon nu réew mi waaye ba ñu sàccee élection yi nun ñëpp a doon sant yàlla ma wax la ko yàlla xam na ko ba bërki démb maa ngi ciy waxtaan ak Serigne Moustapha mii ma ne ko seetal booba bu fekkoon ne noo gañe téye réew mi ba léegi ni ñuy saaga niti pouvoir yi lan nuy saaga ma ne ko ndax dana fekk du nu mën a gérer réew mi duñ ko man koo xam ne doxal daayira dafa la te mën nga gérer réew dama leen koy laaj ma ni ko sëñ Babacar si am na juróom-ñaari at di réorganiser daayiratul kiram mu te tëj te mënoo ëpp barke mënoo ëpp ma ni ko Sénégal yi noonu la mel ils sont naturellement indisciplinés loolu la yàlla dogal te Blaise Diagne ba léegi jàmm amul ma wax la ko te Blaise jaañ ba léegi te ku ci ne booy tàmbali yiw ngay tàmbalee te ku ci ne booy tàmbali yiw ngay tàmbalee waaye li Blaise waxoon sëñ kër si mu ni ko yaa ngi mel ni danga xaw jeex mu ni ko sëriñ na damay def ba duma jeex parce que dama am ñeenti problème problème bu njëkk bi mooy ñi ñi ma xaritool defe nañ ni noose pouvoir rekk moo ci des ñi ma bañ itam defe ni sosal ma rekk moom daaneel tubaab yi nekk ci diggante bi di exploité ñi ak ñii ba noppite te jabawu tubaab laa am dama complexe duma la ko néew ni ko ñeenti problème yi ñoom jeexloo nii c'est loolu ah waaye xamuloo ni mag ñoonu yar mag ñoonu yar te depuis Blaise ak léegi looloo nekk ci Sénégal ba mu fi jógee ngalandu la fi bàyyi ngalandu itam li mu bëggoon a wone mooy wone ni sénégalais la te bu ko wanee ba mu jeex rek jikko wolof ñëw te bu jikko wolof ñëwee du fi def dara maa ko wax mu jóge fi Lamine Gueye ñëw aksi di doomu nit ku nekk un bourgeois nit ñi ku nekk ak sa bakkan ni ko kay dundalal nu sunu bakkan mu toog fi li fi nekkoon na ko néew nit ñi seddoo ko mu jël westam teg dem yoonam bi muy dellu si nag mu indaale Senghor Senghor ñëw ñu naan kii kaw asamaan la jóge li mu jàng tubaab sax jàng ko ñu di ko yóbbu ci penc yeeg fu ne mu naan kamaraat nit ñiy daanu aal naan déggal nee na kamaraat yëfi caaxaan yooyu yu kenn xamul yu kenn xamul te du noonu du noonu du noonu Senghor it boo ko waxee dëgg mu nangu ko yàlla xam na ko loolu moom qualité am la maa ko xam ci moom maa ko xam ci moom dama dem di voyager pour benn projet bu ma am ndeke dama dëdd rek am ñu dem yàq bopp bi dëkk bi ma dem fi ñu toog di def ñëw pour projet bi kenn ñëw ni dafa jaaxle parce que Sénégal ëllëg Senghor dana visiter chantier HLM yi te kenn mësul gis fu président de la République di visiter chantier HLM même ministre sax waru fa dem directeur construction rek a fa war a dem li ma kon nag am na déclaration bu mu fa war a def te ragal naa ni sa présence fii moo tax mu di ko def seetal loolu ci ëllëg sa rek Senghor def dem def déclaration wane ni euh, fii régime socialiste moo fi ne du ñu nangu monopole mu ni ma justement looloo taxoon ma ni la nanga ko déglu hmm. mu ni ma sa projet bi la ma ni ko baax na mu ni ma kon nag on laisse ma ni ko ah non ce n'est pas parce que wax na loolu rek ñu war a bàyyi ma ni ko parce que yàlla fi nekk li mu bind ci jëwu nit kenn mënu ci dara mu defee ni damay kaf ma ni ko demal gisee ak Senghor waxtaan ak moom mu dem gisee ak Senghor waxtaan ak moom sengor ni ko ak projet nu mu mën toll fii ci senegal trente pour cent yi rek la ñuy jox Sénégal yi parce que gestion mënuñu ko Sénégalais yi mënuñu gestion am na xale bu baax boo xam ni moo doon ministre hydraulique te nekk sama mbokk te nekk taalibe maam Serigne Touba mu ñëw ni ma waxal sengoor bu mu waxati nit ñi loolu parce que dafay bloqué avenir u xale yi mu defee ci bopp tubaab yi ne xale yi gestion mënuñu ko àdduna dafay tukki ma dem seeti sengoor mu ne ma oui man maa ko wax parce que fi gestionnaire amul fii bu ko defee 30 pour cent yi soo bëggee ñu seddee la ko ma ne ko déedéet 30 pour cent soxla mu ma ko 100 pour cent la soxla ma ne ko danga may wax nag man nga wala mënuloo mu ni ma mënuma ma ne ko bon li ma xam te xam ko mooy bu ma fi jógee nga jox ko ko jur loolu la pour yow sa famille rek a compté man compté wu ma sama famille compté wu ma ni ko wante tey la ñuy deqalu ko abadan gis nga àllaaxira yàlla buñ fa gisee mag yow billaahi wal kitaab mag koo ma jóg di dem bu téye ma ni ma déedéet toogal nu waxtaan man safaan taxul ma wax ko dama foogul ni rek fii di fi am un gestionnaire boo mën a confier loolu te dem doxu sa soxla ma ni ko bu dee loolu rek kay def ma confiance ma ma kon nag def naa la confiance ma ni ko téléphoneel ñi nga waxoon ni doo ko nangu mu téléphoné leen ni leen nangu naa ko mu jeex tàkk parce que loolu la xol bu sell mu fa yóbbu woon moo tax yàlla nangu ko waaw ba tax na yenn yi suspicion yeeg yu kenn xamul ci ay mukallaf ñoo xam ni daaniki rek ñu ngay xalaat seen bër sax waaye xalaatatuñu leneen nga defe ni ay pouvoir rek yu kenn xamul yu kenn xamul yu kenn xamul man noonu lay def ñoom laaj ko maître Abdoulaye Wade bi am na bés ñu yónnee ko ci man te président ivoirien bi moo ko yónnee ci man mu ñëw ni ma jógal dem Côte d'Ivoire gaaw balaa tas Ousmane Ngom jiitu na la laaj ko Ousmane Ngom laaj ko Ousmane ma ni tekk ba mujj ma ni ko demuma amu ni ma loolu mënul nekk ñu daldi woo Ousmane Ousmane woo ci téléphone bi mu wuyu ni ma président baa ngi lay xaar wutal na la ñaari daluwaay wutal na la daluwaay ca otel ba Ivoire wutal na la benn ci Cocody pour nga recevoir fa daayira yi ndax éclatement dafay bëgg a am ci noor ak sud ma ni ko ñëwuma rekk yam foofu ñu jaaxle moom mu jaaxle ma dikkee jaaxle ma ni demuma ñu bàyyi noonu ñu teg ci ñeenti fan lay Wade ñëw li ma waay yow ku la xamal affaire bi ni ma nekkee boo demoon àdduna tukki billaahi wal kitaab ni ma ku la ko xamal ma ne ko ah ku nekk ak sa kilifa waaw waaye yenn yi yenn yi ah, soo amee yenn kilifa yi ñoo lay dimbale ñoo lay dimbale ci xalaat yooyu li ma ciy daj manuma la ko nettali mënuma la ko nettali ba tax na affaire pouvoir ak pire teeg yu kenn xamul rekk du noonu du noonu nag dëgg la nag mu ngi tolloog bu ñu demee ba kenn ku ne ni yàq ma gënal fexeel yow itam loo mën a yàq nga yàq ko waaw et kooku noonu rek la boo demee ba ku nekk ni yàq ma gënal yow itam loo mën a yàq rek yàqal waaw kooku loolu rek la parce que moom rek a des bu desee ah ku ne ni damay yàq yow it yàqal loo man rek waaw te jàpp ci yàlla nag man toujours noonu lay def toujours noonu lay def bu ko defee nu nekk fi rek di taalibe yonent bi nekk fi rek di taalibe cheikh nekk fi rek di taalibe Maodo nekk fi rek di taalibe sëñ Babacar si et puis surtout leneen amul ndax itam ñaari silk rek a fi nekk silkul ambiya wa silkul awliya silkul am yonent bi mooy xaatim bi amul werante te kenn négocié wa koog moom dañ ko ci dañ ko orienté obligé ko mu nekk xatimul ambiya waaw waaye silkul awliya cheikh a nekk xatim bi wal qutbul maktum wal barzaxul maxtum waaw moom la kenn fekk ko ci waaw mooy al qutbul maktum wal barzaxul maxtum te mooy alxawsu rabbaani wal aarifu samadani waaw kooku kenn kenn fekk ko ci waaw kooku kenn fekk ko ci ndax itam <laughs> dama am benn xarit bu baax la tubaab la te dafa gëm dafa gëm diineem nee na ma cheikh maa ngi ci sama juróom-ñeent fukki mësuma tux mësuma naan mësuma doxaan sama jabar benn at laa ko mage te li ma mën mënatu ko ma di la ñaan nga ñaanal ma bés bi muy dee walla bés bi may dee nu bokk ko deeyandoo mu ni ma ma dee bàyyi ko gannaaw fasuma ko yéene mu dee bàyyi ma gannaaw fasuma ko yéene kon nag ñaanal ma nu deeyandoo ci benn fan te ki ma doon wax lii gisuma ku ko raw ci tugal te xaritu benn bakkanu sengoor la ma ni ko dafa am foo juume mu ni ma fan la ma ni ko tàgguwuloo sa jabar li ma wax nga dëgg erreur bu rëy laa def mu nangu ko beneen yoon ba mu ni ma comme léegi dootuñu xuloo juboo nanu ma wax la ni nangu naa ni Muhammad c'est l'un des hommes les plus intelligents au monde waaye nag mënul nekk prophète parce que yaa ngi yem ci ay saag ma ni ko pour yow chrétien mu ni patt ba mu yàgg ni ma wax nga dëgg juumati naa <laughs> gan gi mu àndal ni ma mais man gëwuma yàlla moom mi ngi gëm yàlla te nu ngi xarito ma ne ko du ci dara ma ne ko kooku nag du ci dara parce que gëm yàlla yàllaa koy def ci xolu nit ma ne ko def ko deful ci sa xol gëmuloo ko mu ah du loolu parce que je suis philosophe te man ñi ma xam nañ ni tout est noonu la ma ko waxee ni ma ñoom ñëpp laaj leen mu ni tout est dû au hasard ma ni ko mais le hasard c'est une épithète parmi tant d'autres ma ni ko hasard dàkkental la rek waaw ma ni ko c'est une épithète de la volonté de Dieu ma ni ko la preuve si vous appelez le hasard ce n'est pas hasard qui répond c'est la volonté de Dieu qui répond ñu continuer noonu soow soow soow mu ni ma est-ce que alquran wax na ci dara ma ni ko waaw waaw mu ni ma mën nga citer verset ba ma ni ko waaw mu ni ma ban la ma ni ko doona baax la atadoona baax la wa tadaruuna ahsana alxaliqin ma ni ko lool la ma ni ko yàlla xam na ni am na ñoo xam ne asaare seen yàlla waaye moo mu ngi leen di laaj moom yàlla ñi def hasard muy seen yàlla mu ngi leen di laaj naka la leen loolu dale parce que ñoom ñoo ëpp valeur hasard naka la nit di jaamoo lu mu ëpp valeur innakum wa ma taabudun min doonillah